sëriñ ibrahima fari mbàkke sëriñ ibrahima fari mbàkke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1880 ci dëkk bi nag di mbàkke bawal ci dëkk boobu nag la feeñee jamono nag ci atum 1880 muy doomu soxna fari mataloo ak sëriñ daam seynabu mbàkke moom sëriñ ibrahima fari mbàkke benn doom la nag ci waajuram wu góor nag ak waajuram wu jigéen waaye am na ñeneen nag ñu mu bokkal waajur wu jigéen nag te bokkuñu nag waajur wu góor ñu mën kee ràññee nag sëriñ ahmadu jee mbàkke ñu gën koo xam nag ci sëriñ moodu jee mbàkke Lo ibnu sëriñ Ibrahima Absa Mbàkke sëriñ Moussa Fari Mbàkke ibnu soxna Fari Mata Lo ibnu sëriñ Ibrahima Absa Mbàkke sëriñ Abdou Fari Mbàkke ibnu soxna Fari Mata Lo ibnu sëriñ Ibrahima Absa Mbàkke ñett nag la bokkal nag waajur wu jigéen te bokkuñu nag waajur wu góor laataa sax ñuy xuus nag kii ñuy waxtaane tey jii nag di sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke ñu wax leen nag askan wii ko meññi nag ñoom ñooy ñan soxna Fari Mata Lo doomu soxna Mareema Muur Sekk la ak sëriñ Madun Lo Awa Jama soxna Mareema Muur Sekk mi ak sëriñ ma Lo Awa Jama mii ko meññi moom soxna Farimata Lo mii meññi sëriñ Ibrahima Fari ñaari jëmm yi itam nag ñoo meññi itam nag sëriñ Ndaam Abdourahman Lo muy sëtub cekkeen nag ak ndaam di ñaari ëtt yoo xam ne itam nag ëtt alxuraanul karim lañ moom sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke doomu sëriñ Daam Seynabu Mbàkke la sëriñ Daam Seynabu Mbàkke doomu sëriñ Ahmadu Joosi Mbàkke la sëriñ Ahmadu Joosi Mbàkke mi doomi sëriñ Ceerno Farimata Mbàkke la sëriñ Ceerno Farimata Mbàkke doomi Maam Maaram Mbàkke la bi alxuraanul karim moom sëriñ ibrahima fari mbàkke atum maamam nag lañ ko yóbbuwaat nag di Tayba joxaat ko fa nag nijaayam ju ñuy wax nag sëriñ maam sàmba sekk moo ko dalal nag alxuraanul karima ci loxoom itam nag la jànge alxuraanul karim nag ba mokkal ko foofu itam nag la jógee ci kaamil bu mu bindoon nag yit ko ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim nag ci gànnaara ginnaaw bu mu eggee gànnaar nag ba jaayante ku baax ki sëriñ Touba seexul xaddim nag ba noppi la ko fa seexul xaddim nag téye féetale ko nag ci njàngum alxuraanul karim bi joxoon na ko fa jiite ko seexul xaddim itam nag am na ñu mu ko joxoon gànnaar itam nag ngir mu jàngal leen ñu mën cee ràññee nag sëriñ moor Asta Sylla mu wéy des gànnaar nag ci loxo ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ba ni seexul xaddim nag jógee gànnaar bi seexul xaddim nag jógee gànnaar nag di dem ca yéen jolof yóbbaale woon na nag sëriñ ibrahima fari mbàkke mi ca yéen jolof ca yéen jolof nag la jote ngërëmam mook sëriñ moor soxna buso moom maam moor jaara mbàkke ñoom ñaar nag la seexul xaddim nag gërëmandoo nag ci benn jotaaya seexul Jolof dellusiwaat nag fii mu cosaanoo nag di Mbàkke Bawal jaar na itim nag ci nijaayam sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ci daaru Xalimul Xabiir yëgal ko nag li ko sëriñ Touba Seexul Xadim defal muy gërëm ko ginnaaw bi nag la bàyyi ko Ndaam daaru Xalimul Xabiir fas yéenee wuti nag yëfi boppam mu dugg nag suufus Bawal si rawatina nag ci département bii nag di Bambey ci suuf suñuy wax nag mboobeen sëriñ Moustapha Diouf nag la fa dalaloon ginnaaw bu mu eggee nag ci kër sëriñ Moustapha Diouf nag ba dal fa biñ gisee nag sëriñ Ibrahima Fari melokaanam nag ak seelaayam xam ne daal nit kii nag nit ku baax la ñu naxtaan ko nag ba téye ko fa ginnaaw buñ ko fa téyee ay fan nag sëriñ Moustapha Diouf mii nag jébbaloon na ko doomam di sëriñ Maam Mbay Diouf sëriñ Maam Mbay juuf mii nag moo nekkoon loxoom nday jooru sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke bépp addiyee nag bu sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke daa yit ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim sëriñ Maam Mbay juuf mii nag daana ci ànd wala moo ko daa yóbbu ginnaaw bi itam nag ku wax sëriñ Moussa Diagne ci dëkk bu ñuy wax Njarno mooy itam nag nag céeneen moom itam nag jébbaluñu na itam nag ci bu ñuy wax nag Salaw moom itam nag jébbalu na itam nag ci sëriñ Ibrahima mu tàmbalee am na mbooloo tund woowu nag ba mu fa nekkee lam fa soxla woon nag ci suuf itam nag munu ko fa am ab tool nag lañ ko fa daa bayal ginnaaw bu mu ñëwee nag ci sëriñ Ndaam Abdourahman Lo nag ba waxtaan ceeg moom di ko xamal ne daal fee ma nekkoon daal ci tundu mboobeen woowu la ma fa soxla nag ci suuf nag munu ma ko faa am dama bëggoon nag suuf nag su yaatu nag su ma mën a baye ndigalul cheikhul xadim li nag laa bëggoon a sàmm sëriñ ndaam nag abdourahmaan loo di ko xamal ne cekkeen da sa dëkkum maam la ngénte itim am na fa wala daal aw xew nag am na fa xew woowu nag soo fa demee say mbokk nag ñoo fa nekk ginnaaw bu xew wa jàllee nag da fay toog waxtaan ak mag ña bu fekkee ne nag ci tundu cekkin woowu nag gis nañ fa foo xam ne nii daal suuf la nag soo mën a nekk mën naa am nag soo waxtaaneek ñoom danañ la ko xamal bi sëriñ ibrahima fari wéelee ndigalul sëriñ ndaam abdourahmaan loo loolu ba dem nag ci dëkkum maam bi nag di cekkeen ba xew wa loolee nag la waxtaan ak mag ña am nag ca mag ña ñu ko xamal ne gis nañ fi suuf soo xam ne nii téeméeri at yi daal xamuñu nag ku ko bay wala xamuñu nag ku fa dëkk am yeneen mag nag ñu ko xamal ne téeméeri at daal bari na juróom-ñaar fukki at yi nga xam ne nii daal mën nañ cee wax naa lu leer gisuñu daal kenn ku fa dëkk nak wala nag ku ko bay mu xam ne daal lam bëggoon nag mi ngi tàmbalee am mu del siwaat nag wax ko sëriñ daam abdourahman loo sëriñ daam da ngay dem nag ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim nag ko wax ko ne daal gis nga suuf nag ci sa dëkkum maam bii nag di cekkeen wax ko nag suuf sa nag lañ la ca wax soo eggee nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim nag xam naa ko nag bu baax a baax dana la laaj nag bërëb ba nag fu mu toll su boobaa nag nga wax ko ne sëriñ ndaam abdourahman loo nee na ma bis nag ànd ngeen doon seeti nag maam asta waalo ci dëkk bii nag di naawel fa mu doon jullee nag ca wetu siyaan ya ci soowu bi nag fa la féete bi sëriñ ibrahima fari nag soleew dàllam nag dem njaareem nag xamal ku baax ki sëriñ tubaa seexul yëpp nag wax na ko nag la ko sëriñ ndaam abdourahmaan loo waxoon bërëb ba nag fu mu toll mu di ko xamal ne daal sëriñ ndaam abdourahmaan loo nag bi ma ko waxee nee na ma daal soo eggee bu la ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim laajee nee ko bi ngeen àndee nag di dem nag di seeti maam asawaalo mbàkke fa mu doon jullee ca wetu siyaan ya foofa nag la sëriñ tubaa seexul xadim nag di ko xamal ne daal akasaa foofa nag mat na foofa itam nag moom mooy bërëb ba soo demee nag mën nga koo sanc da nga tudde ko nag daaru neex ma foofu ak ñaan itam nag jox ko ko bi mu ñëwee itam nag la dëkk foofa sanc ko wax nañ ne daal bi mu koy sanc talut woon nag biir cekkeen bi mu ñëwee nag lu tolloo kilomètre nag la andu sanc fa ab gëtti di def nag saa bu xëyee nag dem nag yi nag foofa ci lu tolloo ñaari at jàpp ñett nag lañ gor nag dëkk ba mu doo ko jóge nag fii mu nekkoon nag ca gent ba dem nag dëkk nag biir daaru neex ma doon na xamal ne nit kat bu dee wattu dara da ko war jege wala nit nag bu dee sàmm dara nag war naa gis nag la muy sàmm bi muy gor nag dëkk boobu nag di daaru neex ma ci àndaloon nag di gor dëkk ba nag ñu mën cee ràññee waajuru sëriñ mbàkke ba nekk nag ci ciise ku wax nag sëriñ Mbacke Ñang nekkoon ab xaritaam sëriñ Modou Diop nekkoon ab taalibeem sëriñ Modou Diop mii nag wax nañ ne gànnaar nag la ko ko sëriñ Touba Seexul Xadim jébbalee sëriñ Modou Diop mii nag dafa ñëwoon gànnaar doon jébbalu ci ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim Seexul Xadim nag di ko xamal ne defar nit nag day laaj taqoo te jamono jii nag aw ma jot waaye nag Ibrahima Fari nag defar naa ko demal nag lu ca moo tax nag sëriñ Modou Diop mii nag jébbalu ci ndigalul ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim ci sëriñ Ibrahima Fari ci réew moomu nag di gànnaar moom jaañ itim ci dëkk bu ñuy wax xawar nag fekkee na ko sëriñ Ceerno Ture dëkk bu ñuy wax nag salaaw itim fekkee na ko sëriñ Moodu Gube ci dëkk bu ñuy wax na kuré itim fekkee na ko sëriñ Jabel Kamara ci dëkk bu ñuy wax Jokkantin itim fekkee na Gorba sëriñ Moor Seen ci dëkk bu ñuy wax Ceeneen sëriñ Maxtaar Njaay sëriñ Maxtaar Jaañ sëriñ Isaa Jaañ sëriñ Mambay Juuf sëriñ Usmaan Jaañ sëriñ Moodu Jóob ak sëriñ Mapenda Lo dëkkam boobu mu sanc nag di Daaru Nexma mi ngi nag ci région bii nag di Bawal ci arrondissement bii nag di Kayal ci commune bii nag fukki kilomètre ak juróom nag moo dox itam nag digganteem ak Mbàkke Bawal dëkk boobu nag la wéy nekk nag ba ni mu génnee àdduna ci atum 1948 dëkk boobu itam nag bi ko sancee itam nag ba nekk fa am na itam nag ñu mu fa nekkaloon itam nag ci wàllu mbokkam maam Balla Mbàkke nag tañ bokk waajur góor itam nag ma nga fa woon sëriñ maam Sayar Mbàkke itam tañ bokk waajur góor itam nag ma nga fa woon sëriñ Omar Seck di doomu nijaayam itam nag ma nga fa woon bàyyi sëriñ Lo di ki sëriñ Daam Abdourahmane Lo Faye sëriñ maam Moor Jaara Mbàkke nag ma nga fa woon sëriñ Abdou Fari Mbàkke di rakkam nag jum bokkal waajur gu jigéen itam nag ma nga fa woon sëñ Abdou Fari Mbàkke mii sax moo nekkoon nag bara droit am lépp loo xam ne ni itam nag daana ko def daana ko ci laaj xalaata moom sëriñ Abdou Fari Mbàkke foofu itam nag la wéy nekk nag ba nim génnee àdduna ci atum 1948 bënn na fa nag ab teen ci atum 1924 taxawaloon fa nag daaray alxuraanul karim ak daaray tarbiya li ëpp nag ab liggéeyam alxuraanul karim la mbooloo mu takkoo takkoo takko itam nag defar na leen nag ci dëkk boobu di daaru neex ma bi mu 1948 dëkk boobu nag di daaru Nexma jigéen ña fa nekkoon doon nañ sàkku nag ci rakku sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke ba di sëriñ Abdou Fari Mbàkke ngir gën a nag jege ji ndox ma teen ba fa sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke bënnoon fa mu ko bënnoon nag ak fi mu defoon dëkk ba ci kilomètre nag lay toll jigéen ñi nag doon sàkku nag ci sëriñ Abdou Fari Mbàkke ngir gën a mën a nag jege ji nag ndox ma sëriñ du Fari Mbàkke itam nag doon na leen xamal ne mag daal nag du tuxu ba fa Cheikh Mouhamadul Faadal Mbàkke ñëwee nag di seet si nag sëriñ Abdou Fari Mbàkke Ibrahima Fari Mbàkke gi la ko jigéen ñi nag egge waat ne dañoo bëggoon a gën a jege ji nag ndox ma Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag di leen xamal ne mën ngeen a nag ba ca ndox ma loolu nag moom moo waral nag ci daaru ma mu am ñuy wax gent ba teen boobu nag dëkk bi fekk si ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Faadal Mbàkke sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke nag moo ko fi bënn ci atum 1924 bi mu ko bënnee nag ci atum 1924 la yónnee nag ci ndox mi ci njaareem nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim Seexul Xadiim nag ñaanaat ci ndox mi ñu ñëw nag sotti sànniwaat ko nag ci teen bi teen boobu nag bi ko sëriñ Ibrahima Fari foofu ci ginnaaw bu mu sancee nag dëkk boobu nag di daaru nixma dafa waxoon ne daaru nixma nag dëkk bi yaakaar la bari na nag ay dëkk nag yu ko wër wala bari na nag ñu soxla ndox nag ñu ko wër bëggoon na nag kenn ku ne xam na nag lii muy def nag muy bënnub teen yàllay kese nag moom moo tax moo taxoon nag mu foboon teen bi nag bënn ko foo xam ne nii nag ñëpp nag danañ xam ne daaru ma nag ak ñoom nag ñoo ci yem mu ànd woon nag kilomet nag ci suuf soosu nag mu goroon bënn fa nag teen ba waa daaru nix neex ma nag bu ñu soxlaa ndox dem nag ca teen ba ñi nga xam ne nii itam nag wër nañ daaru neex ma itam nag te soxla ndox di ñëw itam nag ca teen ba ginnaaw nekkinu sëriñ Ibrahima Fari nag la waa dëkk ba yëg na nag teen bi nag sori na leen ñu sàkku nag ci Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ngir gën a jege si nag teen ba sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke nag bi mu nekkee ci dëkk boobu nag di daaru neex ma ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadim nag nekkoon njaareem woolu woon na ko bis nag ci njaareem di ko xamal ne Ibrahima man mii nag maa la woolu woon sa nijaay nag Abdourahman daa am nag lu ma daaru xalimul xabiir googu ma bëgg nag koo xam ne nii nag dana ko jàppale nag ci liggéey boobu nag mu nekk bu ëllëgee nag ma boole leen dimbali mu jógee njaareem nag ci woolu gu ko sëriñ Touba Seexul Xaddim woolu woon del siwaat nag daaru nixmati ndigalul sëriñ Touba Seexul Xaddim woowu nag mu def ko nag aw sasam nag wudut booy wax nañ ne nag daana def at mu jot ci dund nag lam daa indil sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo nag na lool ba doomi sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo yi nekkoon doomu nijaayam ak soxna yi nga xam ne ni nag ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim moo leen dëkkoo woon tañ nekkoon foofu poñe Ibrahima borom suuna si mu wéy nekk nag ci ndigalul ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim ci yor googu mu koy yorloo sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ba ni fi sëriñ Ndaam Abdourahman Lo bàyyi ko ci atum 1943 bi sëriñ Ndaam Abdourahman Lo génnee àdduna moom sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke moo ko yëgal Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbàkke Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbàkke di ko xamal ne indil ma sa nijaay Touba ginnaaw bu mu jëlee sëriñ Ndaam Abdourahman Lo ci dëkk bii di Ndaam Daaru Halimul Xabir ba yit fekkee sëriñ ndaam abdourahman loo ba noppi la ko cheikh mamadou moustapha mbàkke nag doon ko xamal ne ibrahima wàcc nga sa nijaay itam nag wàcc na sëriñ tuubaa seexul xaddim mi leen waxoon lim leen wax nag moo ci des sëriñ tuubaa seexul xaddim nag ku ne xam na ne am na fay daan na ko nag bisub keroog bi la sëriñ tuubaa seexul xaddim wooloo di la wax ne nag dama bëggoon na nga dem yoral li ma nag sa nijaay keroog nag maa nga fa la néeg ba lëndamoon moo tax gisoo ma woon waaye bu fab làmp nekkoon na nga gis ma bisub keroog da bi mu la ko santee ba nga wan ko ginnaaw nag dem la masaa sant lii ma sant sëñ Ibrahima danga ca am nag ak gàllankoor waaye Ibrahima mii nag am naa ci moom yaakaar yaakaar jooju seexul xaddim waxoon nag am na ko nag ci yow matal nga ko mu wéy des nag ci dëkk boobu nag di daaru ma di yar di jàng ak nag di jàngale ba ni mu génnee àdduna nag ci atum 1948 defar na ñu baree baree baree baree bari nag ci dëkk boobu nag di daaru ma ñu baree baree bari itam nag fekk nañ ko fa nag ci dëkk boobu itam nag di daaru Nihma moo xam nag mbooleem njabootu ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul itim ñi mu séqal sëriñ ndaam abdourahmaan loo itim nekk nag ay doomi nijaayam ñoom itim nag ñëpp itim nag fekk nañ ko foofu yoonu murit gi itim képp koo xam ne ni itim nag séqoon nga ak sëriñ ibrahima fari mbàkke ñëw nga itim nag ci daaru neex ma googe itim nag fekk ko fa ngir jëmmi sëriñ tuuba seexul xadiima dëkk boobu nag di daaru neex ma pënnoon na fa nag ab teen ngir waa tund woon nag mën a am nag fu ñu naane teen ba nag ba nëg na itim nag ma ngay dox nag ca dëkk ba mu nekk nag ku jaxasoog yoonu murita ginnaaw bu mu toppeeku baax ki sëriñ tuuba seexul xadiim jébbuloo nag ab kaamil sëriñ Tuuba Seexul Xadiim nag téye woon ko nag ci gànnaar féetale woon ko itam nag njàngum alxuraanul karim mi demoon na nag ba jiite fa daaray kaamil nag bi Seexul Xadiim taxawaloon nag ci gànnaar daaray kaamil boobu sax jiite na ko nag ba ca yéen jolof am na itam nag ñu ko sëriñ Tuuba Seexul Xadiim jébbaloon ci dëkk boobu nag di gànnaar wala ci réew moomu nag di gànnaar nag ngir mu jàngal leen alxuraanul karim ci wàllu alxuraanul karim nag la féete woon na ko baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xadiim lu ëpp itam nag ci ab tarbiyaam ci alxuraanul karim nag la ko defee waa Mbàkke nag ñu jaxasoo woon nag lañ woon gànnaar googu nag la ñu fekkantee gànnaar googu itam nag la ñu ànde woon wax nañ ne nag bi Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke nag toogee xalifa général des Mourides bépp kër nag gu mu amoon sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke nag am na fa nag ab néeg wàccuwaay nag bu mu amoon nag ci roon Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundóodi sëriñ Maam Mor Say mi toog toogaayu sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke xamal na ma ne sëriñ Ahmadou Mbàkke Tundóodi nag nee na ko Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke de mas na koo wax ne jërul nga may sori li ma lay soxla nag dafay bari sa néeg bàyyi Ibrahima wala dee fa nekk nag saa bu ma la soxlaa man laa gaaw a gisa loola rek day firndeel ni néeg sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke amoon na nag ci kër Cheikh Modou Moustapha te soriwul woon itam keesuk Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke relation bu ñu am sëriñ Maam Mor Say xamal na ma ne mbindum Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke lim ci yor nag takku na lool mbindum Cheikh Mamadou Faadal Mbàkke itam nag kasaalika relation bu waajuram amoon ak Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke xamal nañ ma itam ne ca kër ga xasida gi sëriñ Tuubaa bind tudd ko du tulaab am na fa goo xam ne nii cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mamadul faadal ak sëriñ ibrahima fari mbàkke ñoom ñett nag ñoo ko maase bind ba mu egg ñu loxo yi nag kenn nag ca njaboot gi sëriñ ibrahima fari mbàkke itam nag tudd na cheikh mamadul moustapha mbàkke doom mook cheikh mamadul moustapha mbàkke itam nag seenu jaxasoo eggoon na ci itam nag ci cheikh mamadul moustapha mu defar loo ko nag kër sëriñ mbàkke madina gi booba nag ay kàmb nag ñoo fi nekkoon muy xamal sëriñ ibrahima fari mbàkke nag na ko sëkkaat ginnaaw bu ko sëriñ ibrahima fari mbàkke nag sëkkee nag ba noppi cheikh mamadul moustapha mbàkke joxoon na ko aw fas tudde ko nag lu waay ñàkk na xarit ba nag moo ko amul bi fi cheikhul xadim bàyyi ko itam cheikh mamadul moustapha mbàkke nag la jébbaloon boppam bi fi cheikh mamadul moustapha mbàkke nag bàyyi ko ci atum 1945 sëriñ ibrahima fari mbàkke ci cheikh mamadul faadal mbàkke nag la jokku waaye nag mu doon xamal cheikh mamadul faadal mbàkke ne sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma mee ajoon na nag ku ko magal dama bëggoon nag nga jox ma ndigal ma dem fa cheikh mamadul faadal mbàkke itam Mbacke nekk naak Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ci ginnaaw bu fi Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke bàyyi ko lu ëpp ñeen fukki guddi ak juróom ngir nag di ko jàppale nag ci yan bu bees nag bu tegu nag ci kawam mu nekkoon itam nag ku jaxasoog mu dul Fadal Mbacke li ñuy wax nag ci mu dul Moustapha Mbacke loolu itam nag la ñuy wax nak ci mu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ñoom itam nag ñoo nekkandoo woon gànnaar ñoo nekkandoo woon itam nag ca yéen jolofa bokk nañu itam nag ay xasida relation boobu nag ñu amoon tax nag tudd na Cheikh Mamadou Cheikh Mamadou Fadal Mbacke itam nag moo amoon yéene taxawu ko Cheikh Mamadou Fadal Mbacke itam nag fekk na ko nag ci dëkk boobu nag di daaru neex ma nag ay yooni yoon ndax kóllëre nag gu ñu séqoon ku baax ki Serigne Touba Cheikhul Khadim nag moo leen boole woon nag ci ca yéen Jolof ak Gànnaar Cheikh Mamadou Fadal Mbacke itam nag moo ko joxoon ndigal ngir mu defar na kër ab Abdou Khader Mbacke gii nekk nag ci jumaa ji ba lettre bu yaatoo yaatu sax la ko Cheikh Abdou Khader Mbacke bind ko ci sant nag liggéey boobu mu liggéey nag këram googu nag parcours nag yu leen sëriñ Touba Seexul Xadim boole woon ba tax na nag bi mu génnee àdduna sëriñ Xamsatu itam nag moo sàkku itam ci cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ngir mu jullee nag jar baatu sëriñ Daam Abdourahman Lo bi di ko xamal ne daal daa am nag lu sëriñ Touba waxoon nag ci sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke mi te moom nag mu fekke ko loolu nag la bëggoon a matal nag tey jii ci bu ko ko cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag mayee ngir mu jullee nag jar baatu sëriñ Daam Abdourahman Lo bi ku jaxasoog sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke la kër gii sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke nag dëkkee Mamadul Faadal Mbàkke moo ko ci joxoon ndigal di ko xamal ne daal dama bëgg nag sëriñ Abdou Xaadir moomu nag jege si nag dëkku baayam bi booba nag sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke nag mi ngi gédee géde googu nag Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke nekkoon am fa kër noonu itam ni la Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke bëggee woon Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke itam nag am këruk Tuubaa sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke nag moo ñëw ziyaari si Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag di ko xamal ne sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke moom nag nekk gédee laa bëgg nag mu jege si nag jumaay waajuróom këruk Tuubaa sëñ Ibrahima Fari Mbàkke nag la ko Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke nag wax nag ak ñeneen daan na leen nag mën ngeen a génn nag dem xool bërëb bi ñoom sëñ Ibrahima Fari Mbàkke nag biñ génnee nag ba gis kër sëñ Abdou Xaadir Mbàkke gii nag wuuf nag jumaa ji ñu xam ne nag bërëb bii nag baax na lañ ñëw nag eggee ko nag Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke mu dul faadal Mbàkke nag di wax sëñ Ibrahima Fari Mbàkke yow nag mën ngaa dellu nag daaru Nixma te soo eggee nag nga wut ndaw nag loo yónni nag ci Cheikh Abdou Xaadir Mbàkke nit kat moom mooy xam na këram nu mu ko bëggee bi sëriñ Ibrahima nag rakkam sëriñ maam Balla Mbacke Khoudia Gaye ñoom ñaar seen ñaari waajur nag ñoo bokk nag wenn waajur sëriñ maam Balla Mbacke Khoudia Gaye moomu nag moo dem nag gédee ci sëriñ Abdou Khader Mbacke di ko xamal ne daal mu dul faadal Mbacke nag moo waxoon nag sëñ Ibrahima Fari Mbacke ngir mu wutal la nag kërug Touba kër gi nag xool nañ ko nag ba xam nag fan la toll Cheikh Mamadou Fadal Mbacke itam nag jubu ko waaye Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag moo waxoon nag sëñ Ibrahima Fari Mbacke na ñëw ci yow nit soo koy wutal kër moom mooy xam nag nu mu bëggee kër gën nag Ibrahima Mbacke fari nag yónni ma nag ci yow wax nag kër gi nag naka nga ko bëggee sëriñ Abdou Khadre Mbacke nag di tontu nag sëriñ Mame Balla Mbacke di ko wax na nag su demee wax sëriñ Ibrahima fari Mbacke kër gi ñeenti kees nag la fa bëgg genn kees gi nag mooy keesug jigéen ñi na ko fa defal nag bennum néeg baneen kees gi nag mooy keesug donga yi kees goo xam ne nii nag fi lay féexloo ak kees goo xam ne nii nag bu waree dallu nag fa lay dalloo noonu daal la bëggee kër gi nag bindoo ni bi sëriñ Abdou Khadre Mbacke nag waxee sëriñ Mame Balla Mbacke xujje gay nag kër gi ni mu ko bëggee ba noppi la bindub lettre nag sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke di ko ca sant ca biir leetar ba nag sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke ginnaaw bu mu nuyoo ba noppi ma ngay xamal nag sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke kóllëre nag gum amoon nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke ci ginnaaw nag bu mu ñaanalee njéggal nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke seede itim nag ne magam la seede itim nag ne ku baax a baax la woon mi koy xamal itim nag kóllëre moom itim nag gum am ak sëñ Ibrahima Fari moom sëñ Abdou Xaadir Mbàkke nag ci boppam mi ngi koy leeral itam nag kóllëre goo xam ne nii seen maam ya nag ñoo ko séqoon muy dox nag ba ci ñoom ñii te dara nag musu cee ñaaw koy xamal ne itam nag sëriñ maam Balla Mbàkke moom nga yónni su ñëwee ba ci yow lépp lum la wax rek man Abdou Xaadir mii nag maa ko ko wax mi ngi koy nuyu loo itam rakkam jooju fa nekk nag di sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke ñu gën koo xam nag ci sëriñ Abdou Fari Mbàkke ñu teewlu nag lettre bi ko sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke bindoon ci bi sëriñ Fàllu Mbàkke waxee nag sëriñ Ibrahima Fari ngir mu defaral nag sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke kërug Tuuba assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu amma baadu maa ngi lay nuyu bu baax yow sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke sama mag ju baax ji di sama xarit di wëlla réew sëriñ Moodu Moustapha Mbacke sama mag ju baax ja yàlla na ko yàlla yërëm te boole nu njëggal li waral bataaxel bii nag moo di di leen sant ak a fet dali wóllëre wa jiitu woon ci nun dale ci maam ba ci nun te sunu sëriñ bu tedd ba di sunu baay bu baax ba dikk fedd li ko yéen it yàqu leen ko tubarkalla yal na nu yàlla may li nu bëgg ci sëriñ bi lépp ak li nu sëriñ bi bëggal ci boroomam te musal nu ci lépp lu lore ak lépp lu bon adduna ak àllaaxira wax naa maam Balla Mbàkke xu jegay nag li ma bëgg ngeen def ko lépp dana la ko wax bu ngeen gisee lum la wax maa ko wax nuyul ma sëriñ Abdul Qadir Mbàkke ak soxna Faati Fari ak sa waa kër ñépp wassalaamu aleykum Abdul Qadir Mbàkke ibnu Cheikh al Karim at Tuubaawi yowma chalaasaau assaadisa asar fii si Qinda xaamat dasasasin kër googu nag bi ko sëñ Ibrahima Fari Mbacke defaree nag ba noppi Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag bég na ci taxawaayu sëriñ Ibrahima Fari Mbacke ci ndigal lool mu ko joxoon nag ba Cheikh Mamadou Fadal Mbacke itam jébbaloon na soxna nag sëriñ Ibrahima Fari Mbacke di ko wax ne nag soxna sii nag mooy sag médaille ci ginnaaw kër gi nag bu noppee soxna Soxda Touré nag la ko jébbaloon soxna Soxda Touré mii nag mook sëriñ Ibrahima Fari Mbacke itam nag am nañ ak njaboota noonu mu meloon ci sëriñ Abdou Khader Mbacke mel ko ci Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ak Cheikh Mamadou Fadal Mbacke Mbàkke noonu itam nag ni la ko meloon nag ci mbooleem doomu Sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadimi moo xam Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke Cheikh Mouhamadoul Bachir Mbàkke tudd na sax Cheikh Mouhamadoul Bachir Mbàkke doom ba ci caatum Cheikhul Xadim mi di Cheikh Mourtada Mbàkke noonu itam nag ni la ko meloon itam nag ci soxna Fatija Mbàkke ba ci soxna Maymunatu Mbàkke doomi sëriñam nag la leen jàppe woon Sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke nag ku bëggoon ku baax ki Sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadim la ku bëggoon itam nag yoonu murid la ku yërëmoon itam nag jullit yi la bi maam Cheikh Anta Mbàkke nag amee jafe-jafe ci nag di Mali ci dëkk boobu nag di Ségou sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke jagleeloon na nag maam Cheikh Anta Mbàkke ajjuma ju jot ñu wàcceel ko nag kaamilu alxuraanul karima ngir jafe-jafe yooyu nag maam Cheikh Anta nekk nag ci Mali dëkk boobu nag di Ségou mën a teggeeku ginnaaw bu maam Cheikh Anta Mbàkke nag génnee ci jafe-jafe yooyu mu nekkoon nag ci réew moomu nag di nag ci dëkk boobu nag di Ségou sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke dafa wax ne kaamil boobu nag nañ koy wéyal ajjuma ju jot ngir ñaanalee ko nag mbooleem jullit yi ba nëgën itam nag kaamil boobu nag ajjuma ju jot nag ngi koy jàng bëgg-bëggub sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke boobu nag man nag di wéy nag di dal nag ci kaw jullit yi sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke nag laataa muy génn àdduna nag ci samedi ji ci àjjuma nag ji ko jiitu dajale woon na nag lenn nag ci ak njabootam ñu fekkee jotaay ba nag ñu mën cee ràññee sëriñ Cheikh Diagne soxna Seynabou Lo nag nekkoon soxnaam sëriñ Abdourahmane Mbàkke di kim faye sëriñ Daam Abdourahmane Lo nekkoon doomam mu dénk leen nag di leen xamal ne ñaara ngi wala ñett nag na ngeen ko fonk nañu fonk nag suñu ngor gi nag te yàlla taalibe ji du yaari yëf nag lenn dong la nag moo ko def ñaar nag tamit benn te nag ñu sàmm nag suñu ngor ndax ku amul ngor nag amoo diine ku amul ngor itam nag loo wax nag mën nga caa génn ku amul ngor nag say wax nag jërut sàmm lii nag bokk na nag ci li mujje wax nag ci àjjuma ji ci gaaw gi nag la génn àdduna ndénkaane loolu nag ñu man koo méngaleeg nag waxi sëriñ Tuubaa jum waxoon nag ci gànnaar bi wax ne nag ndabul gor li nag bu tuuroo doom yi daam say nëbu ji nag fande sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke nag mi ngi génn àdduna bisub gaaw fukki fan nag ci weeru koor koor ci atum 1367 nag ci gàddaay gi gaaw fukki fan nag ci weeru koor ci atum 1367 nag ci gàddaay gi dëppoo muy samedi 17 juillet 1948 samedi 17 juillet 1948 ñu jëlee ko nag ci dëkk boobu mu génnee àdduna nag di daaru neex ma yëgal ko nag ki fi nekk loon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim di Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke itam nag moo sàkku ñu jëlee ko nag ci dëkk boobu nag di daaru neex Nihma indil ko ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Tuubaa jëlee daaru neex ma nag ba indi ko Touba Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke mi toogoon toogaayu ku baax ki Serigne Touba Cheikhul Khadim moo amoon yéene nag jullee ko ginnaaw bu ñu taxawee ci sàppe yi nag ba di ko waaju jullee la Serigne Hamsatu Jaxate doxe ginnaaw nag Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke sàkku itam nag ci Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ngir moom nag mu jullee jarbaatu Serigne Ndaam Abdourahman Lo bi nag di Serigne Ibrahima Fari Mbacke keroog nag Serigne Hamsatu Jaxate nag mi ngi xamal Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke Serigne Ibrahima Fari Mbacke mi daa am nag lu Serigne Touba Touba Cheikhul Khadim waxoon nag ci moom ci njaareem tama fekke ko loola nag laa bëgg matal tey jii nag muy suma sañoon nag nga bàyyee ma nag ma jullee ko Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag féete ginnaaw sëriñ Hamsatu Jaxate sëriñ Hamsatu Jaxate nag daal jullee jarbaatu sëriñ Ndaam Abdourahman Lo bi nag di sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke ñu jébbal ko boroomam nag ci armeer yu mag yi ay xalifaam nag nii la tëddee moom sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke di borom njëkk taawam ba di sëriñ Moodu Ibra Fari Mbàkke nag moo ko wuutu nekk nag ab xalifaam bu njëkk ñaareelu xalifa sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke li ko dalee nag ci 11 novembre 1985 la ba ci 10 octobre 1995 di sëriñ Abdou Salam Mbàkke ñetteelu xalifa sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke li ko dalee nag ci 10 octobre 1995 la ba ci 12 septembre 2006 di sëriñ Maam Madoun Mbàkke ñeenteelu xalifa sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke li ko dalee nag ci 12 septembre 2006 la ba ci 16 août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 dajale nag mbooleem njabootu sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke gi ñu wàcc ay kaamil fàttalikuwaat nag bis biñ mujjee gis nag seen waajur wa ñaanalaat ko mbooleem xalifa yi topp ci moom nag li ko dale ci sëriñ Abdou Salaam Mbàkke ba ci sëriñ Mamadou Mbàkke ñoom ñëpp itam nag doon nañ màggal nag fukki fan nag ci weeru koor di bis biñ mujjee gis nag seen waajur wa ci xilaaf ak Mamadou Mbàkke bi mu toogee toogaayu sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke nekk nag ñetteelu xalifaam la jëlee nag bis boobu ci fukki fan nag ci weeru koor yóbbu ko ci saa buñ gàmmoo nag bu bis ba delsi bis du dellusi ci atum 2004 nag la tuxal bis ba bis bii nag mooy bisub sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke màggal gi nag bu njëkk nag ñi ngi ko daa amale ci képp na ko toog toogaayu sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke sa buntu kër nag lañ daa màggalee bi sëriñ Maam Moor Say ñëwee nag la yóbbu bis bi nag ca dëkk bee nga xam ne nii nag lépp sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke nag fa la nekk muy daaru neex ma ñu fa yéene ko fa màggale xam ne nag bis bi nag seen bisu waajur la te sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke adresse am nag mooy daaru neex ma ñuy ñaan nag ci jàmbaari sëriñ Tuubaa Seexul Ousmane Looba satub maam Maaram Mbàkke ba ka jote ngërëm ca yéen Jolof yàlla nañ ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajey alxuraanul karim amin alxuraanul karim amin alxuraanul karim amin alxuraanul